ñaanal leen ñu Mauritanie dafa yëngatu ndax chot ñu ngi reyante naar yi ak ak ak uh, nitu ñuul yi ñaanal leen ñu yal na yàlla indi jàmm ça me rappelle quatre-vingt-neuf ça ça me fait peur ñaanal leen ñu xale yu góor nit ñuul yi ñoo ñoo dugg ci dëkk bi naaru xeer bu xees bu ñu gis ñu dóor leen damm seen tànk damm seen loxo policier yi lii fu mu jëm baaxul de baaxul baaxul yàlla na yàlla dimbali eh yàlla ñu ngi door rek parce que président bi dafa sodal nit ñuul yi à cause de de recensement bi pour kayit yi ku ñëw bugg am kayit ñu indi la ay problème ñu naan na nga dem sulli sa ay maamaati maam pour am kayit c'est pas normal c'est pas normal lu muy def fii c'est pas normal voilà ku ñëw di wut kayit rek ñu indi la problème mun nga rang deux jours trois jours balaa ngay am kayit.